ziar naa la ma fi. tay dañ la gis ko nga ñëw ci répétition LHKT la moo waxaloon kon say euh dama am contentement hein, parce que suñu dom di dañ ko tété muy mag di mag di mag di mag ba ni tey dinaa taxaw fagaaye taxaw et mais li ma ci gën a neex wul daf ci ànd ak dal parce que dañ nan léeg-léeg tepp tepp mo gën yu hmm? Euh, ba a def euh, spectacle et lumière ca grand théâtre jël ñu ne le 24 décembre jouru Noël mais loolu nag bésu Medina lay doon bésu Ndakaaru lay Sénégal lay et la wax fa euh, di nga ci mu ak son manager ñoom biram ñoom ñëpp et di def liggéey bu euh, jéggi dayo nag bu rafet macha allah donc buy def lu mel noonu di nafar maanaam nekk ci ay wàccaay pour jege bés bi di def ay répétition euh, may leen woon nag tey dinaa ñëw ah te bu ma ñëwee dinaa jéem a apporter dara ah ngeen xool ko

xam nga waaye gis naa fi tamit ay xaritam ñom Tarba ñom ñep ñu ñew assister ko euh yéene partager ak mom bés bobu ba voilà mi ngi noonu xam euh, euh am ñu nek ci ginnam tamit nak vraiment jàppale ko muy le maire Bamba Fall chapeau à lui euh, Cheikh Ba merci momi tamit pareil euh ñom Cheikh Tidiane Seck sunu xarit ci ba ba ci Youssou ak ñeneen ak ñeneen suma ma limee dinaa jum mais ñi nekk ci ginnaawam daal pour jàppale ko bari nañu donc mbégte lay doon ah bésu mbégte lay doon et puis nag bésu Médina lay doon ah bésu Médina lay doon xam nga nag li ñuy wax naan Médine moo jur Sicap jur Grand Dakar jur Grand Yoff jur Patte d'Oie jur Pikine Taañaañal parce que ñooñu ñëpp di ci bari seen maam yo Médine la ñu soxe ko ah Médine nag mooy Médine waaw ah xale Médine moom jom rek lay wuyoo yes jaajëf